ma am lenn lu ma métti nag ma di ko wax mooy que ne bii si ndaw yi nga xamante ne moom lañ génnee Kër Massar laa dëkk dama yeew 4 heures di matin xuus ba ñëw ba ci arrêt ba 9 foofu la may fekk biis du ma yóbbu biis si ndaw yi duñ ma yóbbu biis bu mag laay mujjee xaar mu fii su ma fi jógee centenaire balaa maa yegg sama kër 18 heures dina ma fekk si yoon bi ndax biis si ndaw yi 11 bi laay jël sonn nañ torop na ku ñu mën a dimbale ci biis si ndaw yi moom sonn nañ ci torop torop torop torop ndax biis si ndaw yi biis yi ndaw yi moom mënuñoo mënuñu ñoo yóbbu nañ ñu dimbale ci biis ñuy génn di doxi suñu sox dem dikka Dakar dem dikka onze bi laa doon jël mais bañ génnee biis yi ndaw yi ba léegi dañoo sonn sonn lañ def dematuñu dikkatuñu léegi bu ñu ñëwee baraa ñoo dem dañuy toog di xaar biis wu ma wu ndaw bi cinq heures du foofu lañ ñuy fekk ñu xaar biis wu ndaw bi ba neuf heures ñuy doog dem bis bu mag bi di doog a ñëw ñuy doog a dem ñuy ñaan nag ngir yàlla rek ku ñu mën a dimbale te yàlla rek tax mu dimbale ñu rek ci biis yi ndaw yi sonn nañ torop ci biis yi ndaw yi We'll be right back.